الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ay yéen mbokk julit yi ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala li nga xam ne moo ñu tànnal diine ji di diine joo xam ni dalay xiirtal ci lu lay jàmmal adduna ak alaxira waaye ñaax la it ci nga def loo xam ni day jàmmal sa mbokk julit adduna ak alaxira mbokk ci biir loolu la suñu boroom yoonale ci ñun lii di génne zakat muy muurum koor ñu koy tudde zakatul fitre ndax balaa war doomu aadama bi dafa woor ba kooram jeex nañ xam ne génne zakatul fitre looli farata la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo wax wala abdullah ibnu omar moo ni yonent bi day farataal lool ne ci ñun mooy nit ñi di génne zakatul fitri farata boo xam ne ci jurit ñépp la ko gàlloon loolu moo tax ba mbokk julit lii di zakatul fitri moom nekkul dafa juuyoo ak jaamu yàlla yu bari mbokk jaamu yàlla yi balaa war nit ki dafay fekk ne daa majeur amma bu dee zakatul fitri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo yoonal ñu génne ko ci en ñi majeur ak ñi majeurul ñi ñi tudde ay góor wala jaam tudde ko góor wala jigéen ñépp ñoo war a génne zakatul fitre boobee su ko defee yow julit xamal ne zakatul fitri du yow rek la war ci kër gi waaye képp koo xam ni ab dundam ci yow la gàddu soo amee kattanam wareef la ci yow nga génneel ko zakatul fitre boobi ak kooku kum mën a doon ca la nga xam ne nii sa njaboot la mbokk zakatul fitre da ngay gis ni ñoo ngi koy génne ci la yonent bi digle woon mooy li ñuy tuddee saa saa boobi da ngay gis ne bu dee am nattuwaay amul mooy ñu xool nit ku diggu doomu mu tàllal ay loxoom tàllal boo xam ne du ko tàllal ñàdd waaye it du ko lem ñu sarse ko sarse boo xam ne dafay limité loolu la ñuy tudde mudd soo ci amee ñeent loolu mooy saa bu dee saa bi yonent bi alei salaam doon natte donte ne nii borom xam-xam yi am nañ ci ay ixtilaaf la ci gën a néew liñ ci wax moom mooy deux kilos la am na ñu ko yóbbu deux kilos cinq cent am na ñu ko yóbbu sax ba di ko jegeel trois kilos ala kulli xaal dana gën a rafet yow doomu aadama bi soo génnee deux kilos soo mënoon nga teg ca même bu doon génnaat liibara ay tey ñeenti nit ñoo génneel deux kilos deux kilos nga jël benn kilo teg ca ngir ku nekk ci ñoom am deux kilos ak génnaat liibara muy doon loo xam ne dana mat sëkk ci ngir mucc ci yenn xilaaf mbokku zakatul fitre mi ngi war doomu aadama bi heure boo xamee ni nii jant bi sono bu jant bi sooyee bañ gis weer bi foofee la zakatul fitre di war amma nag yow doomu aadama bi bu la neexee coobarewu mooy ñaari fan avant ñuy wari su la neexee nga génne ko mi ngi noonu ba tey suñu bisu tey bii sax nga xam ne mën na am ñetti fan moo des wala ñaari fan da ngay gis ko mel ni ibnu omar ci li imaamu malik nettali moom ngeen ne léeg-léeg sax daana ko génne ñetti fan avant ñuy kori ca loolu lépp mooy ngir gën a jàppale miskin bi mu gën a waajal la nga xam ne mooy korite googe mbokku ak lu mën a doon it nañu góorgóorlu farlu ba zakatul fitre boobu ñu génne ko avant ñuy julli ji soo gisee miskin boo ko jox loolu day mooy la gën su dee ne nag gisoo miskin na doon da nga koy yónnee ci kër imaam wala nga yónnee ko dëkkandoo boo xam ne wóor na la ne am na ku mu ko jox ngal la way def ko waaye bul dem mukk julli ji fekk génn woo zakatul fitr yonent bi alayhi salaam nee na ci génn zakatul fitram doog a dem julli ji kooku day am na yoolu ku génne muurum koor amma ki julli ji ba ñëw doo koo génne kooku day ab sarax rek la am donte na nag boo ko fàttee wala nga am loo mën a tënkit du tee da nga koy génne mbokku zakatul fitr boobu ñaari buntu la mën a jëm bu dee zakatu alal suñu borom ubbi na ci juróom ñetti bunt yuñ ko mën a dugal amma zakatul fitr duñ ko jox lu dul faqir ak miskin faqir mooy ki nga yëg ne kii kat aajo woona doonte ne laajul kenn amma miskin mooy ñiy wër di laaj ñoo ñépp koo ci jox sa zakat loolee da ngay gis ne baax na zakatul fitr bu la neexee benn zakat nga séddale ko ay nit bu la neexee jël zakatu ay nit jox ko kenn mi ngi noonu loolu lépp da ngay gis ni lu mën a nekk la ci la nga xam ne mooy saraxu murum koor mu des nag borom xam-xam yi am ixtilaaf ci waaw ndax loolu mënees naa génne xaalisam masalan tey deux kilo yooyu ma la wax ndax war naa mën a dem ci borom bitig bi laaj ko waaw kilo ceeb lu muy jar mu ne man nangam ma jël valeur u deux kilo yooyu dem ci faqir bi wala miskin bi na ko lii kat sama zakatul fitr la léegi moom bu ko neexee dem ci bitig ba jënd ceeb su ko neexee def leneen mbokk borom xam-xam yi am nañu wuute ci loolu lu ëppoon ca ña jiitu na doon shafii ahmad malik ak ñeneen ñu dul ñoom ñoom dañ ne kenn du ko génne lu dul ca la nga xam ne mooy alal mooy mooy la nga xam ne mooy ñam bu ñu lekk ñam bi waa dëkk bay lekk te ñam boobu it mooy lu ëpp la ngay dunde yow su ko defee moytu leen yéen waa ndakaaru di génn dugub lu ëpp la ngeen di dunde du dugub ceeb la su ko defee am na ñoo xam ne ñoom dañuy dundee ay lentille ñi di dundee ay ñebbe même waa ji doon dundee la nga xam ne mooy yàpp mu ëpp ci dundam mu jëloon la nga xam ne mooy saa ci yàpp sarxe ko loolu mooy la gën ci moom am naa bu dee yeneen borom xam-xam yi am na yeneen borom xam-xam yoo xam ne depuis Abu Hanifa nga xam ne moom moo jiite woon ci waa ngër yi moom dana déedéet zakatul fitri dañ ko def pour dimbali miskin bi kon la gën ci miskin bi moo gën ci moom te miskin yu bari nga jox leen xaalis bi ñoom ñu jël ko jënd ci lu ñu lekk jënd ci lu ñu solo loolu mooy li gën ci ñoom su ko defee loolu la ci gën a diggu doomu mooy lu mel ne Ibnu Taymiyya daf cay wax mooy mu dee ne daal miskin bi yëg nga ne kat moom lekk gii mooy la gën ci moom amoo droit di ko jox xaalis amma bu dee jàpp nga ne moom kat lekk xaalis bi nga lekk gi nga koy jox soo ko joxoon xaalis bi moo gën ci moom su boobaa jëlal xaalis ba jox ko loolu mooy la gën loolu mbokk mi ngi noonu donte ne ne loolu mooy lu jëkk la mais lu bari ci borom xam-xam léegi it dañuy gënale ci wax ne mënees na koo génn ci xaalis mbokk xam ngeen ne ki nekk biir Canada wala mu nekk biir New York nga bëgg koo génne lu ay kilo ceeb na ko xoolal miskin boo koy sarax fu muy sarax kilo ceeb amaa bu génne woon 10 dollars bu dajeeg ñaar ak ñett ku mu ko jox nga nangu loolee kon ak yombaluk sharia la ñaareel ba am na ci benn ci borom xam-xam yi buy nettali ci Kuwait nee na moom fekkee na ci Kuwait benn magasin boo xam ni ah gars yi génn zakat dañoo ñëw rang-rang bu gudd ndax ñoom ci seen aada zakat ci tàndarma lañ koy génne comme boo demoon ci àll bi ñëpp durub la ñuy génne nee na borom magasin bi di jaay tàndarma gars yi jënd tàndarma am na beneen rang bu nekk fii muy rangi miskin yi gars yi dañuy dugg jënd tàndarma génn jox ko miskin yi miskin yi borom bitig bi am na beneen portefeuille am na ñu mu fa délégué ñooy jënd tàndarma ji ci miskin bi su ko defee mu ñëw jaay ko ñeneen ñooñu génn jox miskin yi ñooñu jëndaat bu ñu fa yendoo ba ngoon bu ko defee miskin yi xaalis la ñuy yóbbu tàndarma ji du génn magasin bi mu ne waaw léegi yow yaa ngi jël kilo tàndarma jënd ko 2000 jox ko miskin bi mu ñëw jaay ko borom magasin bi 1500 kon kay nga jëloon 2000 yi jox ko miskin bi mu nit bi loolu moo gënoon ci moom loolee kon mbokk benn gisin la boo xam ne taxul ma wax ne ñoom ñoo nekk ci dëgg waaye li may wax rek mooy pour koo xam ne dem nga ba jàpp ne da nga koy génne xaalis it na sa xel dal ci ne am na borom xam-xam yu bari yoo xam ne jàpp nañ ne loolee mën na nekk donte ne ne rawatina ci ndaw yi nga xam ne dañuy jël ay téere ci ñuy taral lool ci ñàkk koo génne ci xaalis mbokk mbir mi yàggul foofu mbokk zakatul fitri mi ngi nii suñu borom yàlla subhanahu wa taala indi ci ñaari mbir li tax mu farataal ko yonent bi alei salaam nee na yàlla faratal na zakatul fitri muy laabal aji woor ji ci la nga xamee ne ci biir kooram ga man koy xool wuru ko woon a xool déglu na ko wuru ko woon a déglu wax na ko wuru ko woon a wax gàttañ lu yam ca defoon yépp loole nga xam ne mooy zakatul fitri bu ñëwee da koy raxas ci bàkkaar yooyu yépp su ko defee kooram nga mat sëkk suñu borom yàlla daal di koy nangu ca loole waaye ñaareelu mbir bi mooy mu jëm ci leel miskin te mbokk xam ngeen ne suñu diine ji mooy diine yi ittewoo miskin yi waa sawara buñ leen laajee lu tax ngeen dugg sawara bokk na ca lay ya ñuy lay mooy walam nàkku nit imul miskin ñun dañoo musuta leel li nga xam ne mooy miskin looloo tax suñu borom yàlla farataal ci lu mu néew néew at bu nekk at bu nekk xale bi doog a judd sax daañ ko génneel zakatul fitre mu leel miskin su doonte ne mën nga leel miskin bus bu nekk fa lillahi alhamdu semaine bu nekk fa lillahi alhamdu weer wu nekk fa lillahi alhamdu waaye lum néew néew loolu boo ko deful au moins benn yoon ci at mi jullit war ngaa génn ñam jox ko miskin ngiree nga bokk ca ña yàlla di teral ngir leen miskin ca ña yàlla di musal ngir ñàkka leen leen miskin te it beneen xikma bu rëy bi ci nekk mooy xale boobu ñu koy génneel mu yëg na bàyyi mi ngi génne sama zakatul fitre mi ngi koy fekkee at ñaari at dem ba majeur loolee day suuxat ci moom ndekate moom mii kat ñi ngi koy jàngal war naa ittewoo miskin yi ba ëllëg lu ko yàlla wërsëgal mu bàyyi ci xel fuqaraaw yooyu ak la nga xam ne way masakine yi ay yéen mbokk julit gis nañu ne bisu iit day bis boo xamee ni nii julit ñépp ci war a fekk julit ñépp ci war a kontaan looloo tax julit ñi ñii nga xam ne ñooy ñeleen tane ku nekk ci ñoom génne ñam jox leen ba loolee ñun ñépp ñu bokk ca loolee nga xam ne nii moom mooy fet bu mag googee ñépp mën caa kontaan waaye mbokk julit lii tamit daf lay jàngal ci ne diine lislaam day bokk na waa ja ca texe ki yàlla dëppaleeg muy def santaane yàlla yi ci boppam waaye yàlla dëppale ko muy jëriñ la nga xam ne mooy ay mbokk julitam ci seen wàllu diin diine waaye ci seen wàllu àdduna mbokk ku mel nii da ngay gis ne texe ne bépp texe ca loolu yàlla lënkale na ko ci aaya yu bëri bokk na sunu borom mu ne jëkkante leen jëm ci seen njéggalu borom ak àjjana joo xam ne ma nga yaasoon ak asamaani ak suuf yàlla nga ko waajal ñi ragal yàlla ñi nga xam ni heure bu ñu amee ak yaatu alal dañuy jël di dépenser waaye ñi nga xam ne même bu dee dañoo nekk ci jafe-jafe dañuy jël di di def dañuy jël di dépenser ba nga xamee ne lenn ci borom xam-xam yi yegg nañ ci ne yow borom kër bu doonte ne ñaari dépense nga am ay dépense bi su it bi moom réglé nga ko pour sa pour sa kër mu des leneen ci alal loo war a dépensé gannaaw ëllëg lu mel noonu yow zakat de fitre war nga koo joxe bayaat miskin bi ngeen bokk dundal bi si géej bi ay lum jafe-jafe julit war ngay séddoo ci sa alal loolee comme na ko yàlla waxe ci aayu aayu yu bëri démb rek ñi ngi ko doon tafsir mooy di leela ñam fii yawmin zi masgaba ca mooy bis boo xam ne nii bisu xiif la ñépp a soxla ñam la nga am ak as néew nga séddoo ko ak say mbokk julit ay yéen mbokk julit loolu day suuxat yërmaane ci xolu jaam bi te xam leen ne mbokk day yërmaane melokaan la boo xam ni ci melokaani borom bi yàlla bi gën a kawe la borom boobu moo ne woon sama yërmaande ëmb na lu mën a doon wa rahmati wasi'at kulla shay'in loolu it mu bëgg jaam yi di yërëmaate borom bi won ñu ne lii di yërëmaande yonente bi alayhi salaam nee ne téeméeri cër la ko yàlla def jël benn cër sédde la ko mboolemi jaamam bàyyi maag nit ak jinne am naa juróom-ñeent fukk yaag juróom-ñeent mi ngi koy waajal pour waa aljanna yal na yàlla boole ñu ci ñoom waaye mbokk julit jukko bëri boobee nga xam ne moom mooy am yërmaande xam leen ne képp ku ko yàlla génne sa xol al ko nga perte nga ku ko yàlla saxal sa xol màndargay texe ñëw na ci yow suñu borom moo tagg yonente yàlla bi mu ne muhammad day yonente yàlla la ñi nga xam ne dañoo ànd ak moom da ngay gis ne seen màndarga mooy dañuy tar ci noonu yàlla yi waaye ruhamaau baynahum dañuy yërëmante seen biir mbokk julit fu mu gis julit da koy yërëm te yërmaande ci doomu aadama mooy ngay def lépp loo xam ne dana ko jëriñ jéem a dox digganteeg lépp loo xam ne da koy lor moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala tànk yonent bi alayhi salatu wasalaam ak i sahabaam ak ñi leen di roy ba ila yawmi diin melal leen melokaan bu kawe boobu ca mooy yërmaande bi am seen biir bal suñu borom tagg na sahaaba ya دادني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويبصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ñi nga xam ne ñooy waa ansaar suñu borom nee ne bëgg nañ ñi gàddaa yoon ñëw ci ñoom amuñu lenn luñ leen di iñaane ci lu leen lislaam jagleel bal la nga xamee ne ñoom am nañ ko soxla woon ko lool gënalin nañu seen mbokk julit jox leen ko loolee lekk la col la dëkkuwaay la waruwaay la ak lu mën a doon jël nañ gënale jox ko seen mbokk mbokk julit ca la nga xam ne mooy seen kaw suñu borom nag ni ki yàlla musal ba bëggee woo ak bëggee ku mel nii day texe dëgg ñeel na la ay yéen mbokk julit xam leen ne suñu borom yàlla ñi muy yërëm ci jaamam yi moom mooy ñi am yërmaande yonent bi alei salatu wasalaam ne ngal la waay yërëm leen ñi nekk ci kaw kaw suuf yàlla mi nekk ci kaw asamaan yërëm leen ndax yàlla du yërëm ci ay jaamam lu dul ña nga xam ne dañoo am yërmaande mbokk weeru koore ngi nii di jeex suñu yonent salallahu alayhi wa sallam farataale ko ci loo xam ne day lënkalewaat ñi yàlla may ak ñi yàlla xañ ñoom ñëpp ñu bokk yëgandoo ni lii kat nattu la rek bu yàlla indi ci société bi waaye ñun ñoo bokk lépp kon feet gii ñu jëm ñun ñëpp nañ ko bokk feet ca loolu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ñu jàngal daal di ne day jullit ak moroomu jullitam dañoo mel ne benn miir birig bu nekk dafay dooleel moroomam yonent bi jël ñaari baaraamam ruufale ko ca mooy ñi nga xamee ni nii yàlla da leen a may nañuy jël ca lañu am di jox ñu ñàkk ña nga xam ne dañ leen a jox di ñaanal ña nga xam ne dañoo am lii mooy tax société nekk ci jàmm ca mooy ñaan googu nga xam ni ña ngay jox dañ la ko wax jazakallahu xayran wala yàlla yàlla fay la wallaay bu doon ab villa nga ko tabaxal jox ko mu ne la jazakallahu xayran jazakallahu xayran boobu moo gën loolu day tax ba yow la nga amoon yokku day taxit ba la nga xam ne mooy société bi yépp jàmm am ci ndax ñi nga xam ne duñu dañoo ñàkk duñu nekk di mereeti ak di iñaane ñi nga xam ne dañoo am mbokk ci wàllu yërmande yonente bi alayhi salaam joxe ci misaal boo xam ne wallahi tey boo demoon ci droit de l'homme yi demal ci médecins sans frontières demal ci képp koo xam ne dafay wane la nga xam ne mooy jàppalante kenn mënu koo romb wala nga koy dab rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne julit ñi day ni ñuy bëggante julit ñi day ni ñuy yërëmante julit ñi day ni ñuy ñeewante seen biir ay bu nattu dalee kenn mu métti ñëpp nee na dañoo mel ni rek benn jëmm jëmm bi lépp loo xam ne métti na ci mboolem jëmm bi yëg ko ci yaram bu tàng ak ñàkk nelaw da ngay dégg ko ne nelawuma biig lu tax sama nopp mooy métti mooy la waxul sama bëte métti de nopp bi fanaane métti kii na tànk moo fanaane métti kii na bëñam moo fanaane métti ay cër bu métti ci yaram bi lépp yëg ko mu ne it jullit ñu noonu lañ mel heure bu ñu yëgee seen mbokk jurit mi ngi ci jafe-jafe heure bu ñu yëgee seen mbokk jurit mi ngi ci ak aajowoo lu ñu man dañ ko taxawee ndax dañ koo jàppe moom seen mbokk loolu mbokk lii nga xam ne mooy zakat biñ nar a génne mandarga la ci mandarga yooyee yal na yàlla wërsëgal ñu moom mi ñu mayoon ñu bokk dugg ci weeru koor yal nañu yàlla wërsëgal ñu bokk génn ci weeru koor yal na yàlla nangul ñu suñu koor yal na yàlla wërsëgal ñu mu bañ a nekk suñu mujj koor yal nañ ci yàlla teggile suñuy tiis yal na ci yàlla fajale suñuy aajo yal na yàlla boole ci suñuy xol yal na yàlla rafetal ci suñu mujj yal na yàlla nangul ñu lépp luñ ciy def loolu julli laam saraxam sarax laam ak askar laam ay ñaan ak lu mën a doon yal na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab an-nar ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرته برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين